asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a nuy seetaan ci seen site internet bi tubaa Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ci kàddu gi seen mbokk aaroon si si ngeen ci àndal ci euh, wàllum caméra bi ñu ànd ceeg Abdou Ndiaye ak mboolem équipe bi ñu àndal teew fii ci Poroxaan di dundal li nga xam ne mooy guddik soxna jaaratullahi mam bu Bousso waaye nag su ñu nee Poroxaan xel yi yëpp danañu dem ci jàmbaar ji nga xam ne. moo fi bàyyi ko bu yàggul ñu di ko jooyte nëppeeguñu muy Serigne Bassirou Bousso imam moom Serigne Alxaaji Njaañi Bousso moom Serigne Mbacke Bousso Poroxaan mu ci daan am taxawaay bu mag taxawaay bu am solo nga xam ne sax euh, boo nañ ko wooyee li nga xam ne mooy jàmbaari maam jaara euh, ndax li waral loolu Euh, am na bis bu am solo boo xam ne da koy waajal muy ngontum soxna jaara ngir waajalee ko li nga xam ne moo di màggalu poroxaan di ko daan ko amalee foofu ci mbàkki bu soobee jamono yi mu koy waajal te bis bi seegul ci la suñ borom dogal li muy dogal ci moom euh, waaye nag li lii Alaaji Taala Siise Canaba di wax rek ne euh, doomu aadama bi lim fii bàyyi muy lu ñu war a donn ba fi lu baax ba fi ñu baaxu ko gën yaakaar naa tey fii ci poroxaan ku fi ñëw tey teew fii ci dal bi nga xam ne mooy dalub Serigne Bassirou Bousso Imaam fekk fi taawam bu màgg bu sell bii nga xam ne moo ko fi wuutu ñuy ñaan sunu borom gën ko fee yàggal lool te dolli ko wér muy Serigne Khadim Bousso di taawam ak ni nga xam ne it noonu la taxawoo taalibe yi ak ni nga xam ne it noonu la Serigne bi daan taxawoo li nga xam ne moo di liggéey bi macha allah soo ñëwee. amul lenn coppite loo xam ne am na ci mën nañ ne daal ak yokkute rek moom moo ci feeñ waaye ak wàññeeku moom amu ci ci ngeen ci mu dendeel di Serigne Mourtala Bousso doon doomam joo xam ne it macha allah euh, topp ci ginnaaw magam ji nga xam ne mooy Serigne Khadim ak mbooleem njaboot gi macha allah di ko jàppale ci liggéey bi tey Touba Argentine TV déplacé wu ñëw fas yéene seek bëgg a ak ñoom rek ay kàddu yu waxtaan ci tënk rek incha allah kon Serigne bi. Euh, Touba Argentine TV ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ Arouna ñu ngi lay fay di nuyu mboolem mbokk moo xam ne mi ngi bàyyi xel Touba Argentine TV fu mu mën a nekk ci àdduna bi ci biir senegal ak ci bitti senegal ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di la dalal yow. sëriñ Aliou di rafetlu ñëw bi nga ñëw ci barab bi nga xam ne benn la ci barab yi nga xam ne dañ fiy dundal màggaluk soxna si muy màggaluk Poroxaan di barab boo xam ne niñ ko waxee sunu waajur wa di sëriñ Basiiru moo fi daan nekk daan jiite mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo daan ñëw ngir màggal si ànd ak ñoom màggal gi ci dundal ko ci taxawe ko ci saytu ko saytin wa nga xam ne moom mooy saytu wam ko war a saytoo man ñu ngi lay dalal ci sa kër na la ko sëriñ ba waxee woon ci waxtaan wi mujj a def nam la dalale woon ci sa kër foofee ca Mbàkke xamal la ñu ngi lay dalal fii ci sa kër ci Poroxaan di la nuyu bu baax a baax di la tatagal su ko defee rek kon xam naa sëriñ bi laaj bi mooy rek bis bi nga xam ne sa waajur daan na ko taxawee daan ci amal liggéey bu am solo comme ni ma ko waxee ci ndorte li ba daan def ngont moo xam ne sax ñu ngi tuddee ngontum soxna jaare ngir waajal poroxaan sëriñ bi tey yaakaar naa ne euh, sunu borom dogal na li muy dogal ci moom euh, sa première màggal nga wuutu ko ci toogaay bi nga xam ne moom la fi toogee woon liggéey boobu rek bëggoon nañu nga dikkalaatal ñu ci ak ni ko sëriñ bi daan taxawoo ak tey jamono ji nga xam ne mi ngi ci say loxo. jërëjëf sëriñ Aroun màggalu poroxaan wala liggéeyu poroxaan sëriñ ba da di koo xam ne suñ borom daf ko cee boole boole goo xam ne jiitu na sax màggal gi ndax yàlla daa dogal mu bokk ci sëti soxna jaara sëtoo ci moom ci ñaari wàll yëpp ci wàllu gooy juróom bu góor ak ci wàllu gooy juróom bu jigéen wàllu gooy juróom bu góor sëriñ Jaañ Buso mooy waajuram sëriñ Mbàkke Buso jur ko sëriñ Buso bi jur waaye juróom bu jigéen soxna Mariama Bousso sëriñ Afia Bousso sëriñ Bousso bi jur kon daa sëtoo ci soxna jaara ci ñaari wàll yëpp loolu di ëpp cër bopp sunu borom jagleel na ko ko ci màggal gi muy jagleel goo xam ne jagleelug yàlla sunu borom tabaaraka wa taala cër bopp sunu borom jagleel na ko ci ba mu amoon ca taxawaay boo xam ne moo jur lii nga fekk tey ak li ko jiitu mooy waajuram bu sell bu baax wa di maam Serigne Njaaña dañuy woon koo xam ne màggal Porokhane daf ko ñoroon tolloon ci moom tolluwaay bu sore sore ba muy man di am kàttan moo daan teewal boppam ànd feek taalibe yi bu ñuy tàggatoo mu tàggatoo ñoom gungewaat leen buñ demee ba man gi mënatu mayeetu ko ko jot gi mayeetu ko ko Serigne Bassirou la woo jox ko ndigal ne ko mënatumaa dem Porokhane léegi waaye yow Basiiru yow laa yebal ña ma daan àndal nga ànd ak ñoom dama daan demee nga demee noonu te boo demee danaa la dénk ñaar bu fa kenn tumuranke bu fa kenn ñàkk lu mu fa mën a am ñaari baat yooyu la ko dénk ñaari baat yooyu li muy gàtt gàtt ba mu toqee ci nopp Sëriñ Basiiru ba dafa rëy ci moom diis ci moom mu teg ko ci kanamam ba ba mu jotee ndigal la di dox te doxin woowu ku fi àndal te booba tàmbali ba mbooloo mi néew na lool waaye ku mu fi àndal mbooloo ma lam doon néew néew it man-man ba xëy na melutoon mel mel àggutoon fenn waaye daan na ci def kem kattanam ba la ko su waajuram woowu digal mu di ko taxawee taxawin woo xam ne taxawin wu mat sëkk la loola di dox di dox di dox di dox ba yàlla dogal way juróom ba bàyyi koo fa bàyyi ko fa bu fi way bàyyi koo mu wëyal loola di ca dox di ca dox ànd kook taalibe yi mu ko daan àndal ànd ko mbokk yam ko daan àndal ànd ko sopp ya nga xam ne ñoom la ko daan àndal di ci liggéey liggéey boo xam ne ci biir liggéey ba daf caa feeñ yéene gum yéene aw yiw ñëpp ak yéene gum yéene lu baax ñépp na xam ne ne soxna jaare xéwal la goo xam ne suñu boroom daf ñu koo baaxee xéewal gu ñu suñu boroom baaxe nag lay waru garu ña ko xam mooy ñu xamal ko ña ko xamul lay waru garu ña ca bokk mooy ñu fexe ba ku ci bokkul ñu boole ko ci dugal ko ci. loolu moo tax mu doon yaatal di woote di ci soññee ba dema dema dema dem ba mujj liggéey bi yematul rekk ci. ay taalibey boppam wala waa Kër bay Serigne waaye dem na ba ay daaira yu takkoo takk yu limoo limu yoo xam ne daa nañ bëgg a yëngu ci màggal gi ak lu jëm ci liggéeyal soxna si daawut am bunt buñ ko jaare ba suñ Basiru wootee rek daa mel ni ab wooteem lañ doon xaar dal di ñëw fekk si ko ci liggéey bi mu ànd ci ak ñoom bi mu demee ba daaira yi takku nag ci la créé fédération boo xam ne ñu côté de fédération soppee Maam Jaara mu ay daayira yu takk yu limoo limu yoo xam ne yii ñi ngi biir Mbàkke ñii ñi ngi cees ñii ñi ngi Mbuur ñii ba ci Gàmbi sax am na ay daayira yu fa nekk yoo xam ne ci Maam Jaara ji lañuy la ñuy yëngu bootu woon ci ginnaaw mu jiite woon leen ñoom ñëpp saa su màggal gi ñëwee mu ànd koog ñoom bu jeexee ci bisub tàggatoo ba la leen di wax na leen na ngeen waajalaat déwén ñaaxaat leen déggkat leen bi mu demee nag ba mbooloo mi bari daayira yi bootu uh, uh, bari lool mu xam ne xéewal gu màgg daa laaj waajtaay buñ ko war a waajale mooy màggalu Poroxaan nekk na bis bu rëy boo xam ne am na lu luñ ko war a waajale waajtaay woowu nag moo tax mu sosoon bis bu ñuy wax bisub sant xéewal sant xéewal sax la ko tuddee woon nga xam ne bu màggal gi desee ayu bis ci la koy daal def ayu bis boobu cantuk xéewal googu lim ci jubluwoon wé weesuwut lu rek jëriñ nit ñi ak jëriñ taalibe yi ndax lam ci jublu woon mooy dane daa bëgg a wane cër bi nga xam ne Mbàkke am na ko ci dunduk soxna si ndax ku kenn umpalewut ne soxna si ab liggéeyam am na ci loolu Mbàkke googee la ko defee woon ba xéewal gu ko suñu borom xéewale muy xéewal gën a rëy muy sëriñ bi foofa la feeñe waaye doon taxawal bis boobu yi ngir wane ci jikkoy soxna si ak akub taxawaayam diggam ak boroomam ak taxawaayam diggam ak sëriñ Mamour Anta Sali ak taxawaayam diggam ak ak njabootam waaye it di ca ñaaxee ak di ca jàjjee mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bëgg a poroxa bëgg a màggal si poroxaan ku ci ne bu ñëwee ci barab bi nan la fi war a nekk ak nan la war a màggale màggale loolu moo taxoon mu leen bis bi suñ borom defal ko ci ndam waaye suñ borom defal ko ci ak wuyite goo xam ne kawe woon na sax njortam kon bisu cant boobu loolu moo taxoon mu doon ko taxawal bu ko defee nag mel ni nga fekk barab bi wax dëgg yàlla ab liggéeyam feeñ na ci ab taxawaayam feeñ na ci waaye nag li tax loolu lépp feeñ mooy ndigal lam ci amoon rek la mooy ndigal lam ci amoon ci waajuram moo jur lii moo jur mbooloo mi waaye it moo jur ba law lii nga xam ne moom nga gis tey ci barab bi siñ siñ siñ aruna kon mu mel ne <laughs> moom waxtoo ñu tënk waaye wax dëgg yàlla mbir mi mënoon naa gën a yaatu loolu waaye ci tënk daal ab taxawaayam moom boo ñëwee rek barab bi dana la ko wan ak bëggam poroxaan ak xiram ci soxna si boo ñëwee li nga fekk tey dana la ko wan ndax bàyyi koo na fi dem àllaaxira waaye boo ñëwee day mel ne moom bi mu fi bàyyeekoo sax ci la mbir mi gën a yokk jàmm dama fi nekk waaw kon daal moom ci ci waaw jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Khadim Bousso xam naa bu ñu ci amee ndigal rek Cheikh Mamadou euh, Moutada ci wàllum programme bi rek programme bi bi ngeen xëyee ba léegi rek naka naka naka ngeen ko doxalee ak euh, ci situation bi nga xam ne rek dundin ci kër gi yu mel noonu ci wàllu programme bi rek lañ bëgg Cheikh Mamadou Moutada di rakku sëriñ bi moom tamit macha allah xañ na sax ko du ko du ko faral di bëgg waaye nag munu cee munu cee ñàkk su ko defee kon ci beneen version bi rek mooy ci côté programme bi bis bi ba ngeen xëyee ba léegi rek ak li li des yaakaar naa sax mu mel ni jamono ji eh, gan ñi ñu bare bari ñu ngi wàññeeku waaye teewul ba léegi am nañu desati ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare yéen ñiy topp Touba Argentine TV di nuyu suñu Arouna bu baax a baax di ko tatagal eh, programme bi moom ni mu demee passé wut comme ni ko sëñ bi daan defee rek Euh, mooy ñu xëyee suba ñu jàng alxuraan jàng xasida yi sindiidi bi nga xamante ne bi yàlla def ne moom la daan digle ñu daan ko jàng ci cant gi nga xam ne daaw liñ ci jàngoon ñaar téeméeri junni yu teg kadaalika ren tamit amaat nañ lu toll noona ba njort naa dina ko ëpp ndax am na ci loo xamante ne booleeguñ ko ci ren nag li ci nekk particulier mooy màgg euh, màggalu Poroxaan dafa tombeek ñeent fukki guddi sëriñ sëriñ bi ndax eh, bis ni tey moom lañ ko doon tombeel xëy nañ suba wàcceel ko alxuraan jàngal koy xasida sindi di tubaarkàlla yu leer yu baree baree bari def ko ko yool def ko addiyaam addiyee soxna jaara ba noppi yéene waale ko ci yool bi ndax moom moom ku fonkoon xasida sindi la di ci amoon paat di amoon ak jagle lool lool lool ba ñi nga xamante ne bii moom la ci bëggoon suñu borom defal ko ko ci incha allah daayira yi moom tubaarkaala takku na lool ba am na ci yenn yoo xam ñu ngi commencé sax di dem ndax ñoom fañ dem dafa sore yooyu waa biñ xoolee daal ëpp na ñaar fukk moom daayira yi fi bari ci ëpp yi ñëpp yëpp moom ëpp na ñaar fukk bu baax yàlla def na moom tubaarkaala moom takku na lool macha allah lépp ci ak taxawaayam la woon ak ub liggéeyam ñu ñaan suñu borom fay ko bu baax a baax a baax a baax a baax waaw jërëjëf jërëjëf euh, tabaarakallaahu jërëjëf sëñ Mourtala Bousso euh, jërëjëf sëñ Xaadim Bousso di leen fee yàggal lool yan mbeet macha allah woyof tooy ñu yàgg leen fee fekk suñu borom gën ñoo dëgëral kóllëre gi bu baax a baax te ñaanal sëriñ bi it sunu borom gën a yokk ay leeram te taas yi ci barkeem li lépp dafay wane ne rek liggéey bu bu nangu la macha allah ndax yaakaar naa tey eh, màggal gi gën naa yokk ci ji nga xam ne daan nañ fi ñëw comme ni ko sëriñ bi waxee eh, mel na ni kon liñ naan ba fi ñu baax. Euh, ba fi lu baax ba fi ñu baax a ko gën ndax boo fi bawee lu lu baax te bawoo fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon ñu yàq ko soo fi bawee lu baax nag ba fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon ñu yokk ko kon macha allah sëriñ bi bana fi lu baax bana fi ñu baax ñuy ñaan suñu borom gën leen a dëgëral rek lafal leen cat bu baax yéene mébét yoo xam ne sëriñ bi amoon na ko suñu borom euh, mottalee ko ci yéen incha allah yàlla mën na ko yàlla ko def Touba Argentine TV Arona Cissé Abdou Ndiaye fii ci Porokhane dalu sëriñ Bassirou Bousso imam fekk fi Serigne Khadim Bousso Serigne Moustapha Bousso ak mboolem njaboot gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.